dikkati naa ma ngay songati président Macky Sall tribune yéen a kaay naan man xanaa Bougane Gueye Dany ca tribune présidentielle ba nga xam ne daal dinañ ko fay woo moom Bougane Gueye Dany songati Sall ngaari naan kon la ma yor moo gën la nga yor ndax tekki laa proposé sénégalais yi ma nga fëkk dënnam moom jiital gëm sa bopp naan boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci candidat yi bëggu ño wax gannaaw ba nga xam ni président Macky Sall def na discours à la nation ba nuppi ndax nag dañoo ragaloon Sall jaare foofee daal di leen di kale leen ba duñu jàll ci wàllu parrainage ko Walf Quotidien naan kon waxuñu de waaye gaa yi fi mu toll nii seen cere ja xajam na seen jàll ci loxol yàlla la nekk bugaan ngay dana ci turbine yéene kaay nan koon ku ko gëm ak noppalu ndax moom ma ki sàll mi nga xam ne moom la ñuy ragal ba ragal koo tontu ci discours à la nation bi du jë du demi jë tey du moo am ndogal ci jaam ñi su nekkee mën na maa éliminer fa yallaaxu na am lu mu nar ci man ci élection présidentielle yi Sall na ko def la mu mënta faxas kay mooy liggéey bi nga xam ne def nañ ko daal di koy def ci réewum Sénégal ruq parti ñu daal di koy wër amul fenn foo xam ne bàyyi nañ ko ci élection présidentielle ci warum parrainage bi léegi loole deesu su ko fa xas mënuñu koo yëlëb télé ma diggee ak sénégalais mënu ko fa xas l'évidence yéen kaay naan man président Macky Sall discours na Bougane Gueye Dany discours xamal sénégalais lam daane ko teggil leen coono moom ma tax a jog deux minutes pour lire l'essentiel naan ma nga jëm ci vérification parrainage waaye ma nga naan sénégalais yi gis nga bu ngeen ma falee juróom-ñetti million mètres carrés yi nga xam ne ci banlieue la nekk ten caxat caxatee ko ne ko tungaañ jël ko ci loxol askan wu gore wii danaa ko tegaat seen loxo waaye itam audité suuf si nga xam ne nekk na diggante ndakaaru ak Thiès diggante ndox ak courant ak téléphone ma jébbal ko ñi nga xam ne ay sénégalais lañu le témoin yéene kaay nan man ma ngay naqar luy la nga xam ne moom moo di injustice ba am ca conseil constitutionnel le mandat naan kon dëgg ji kay ci loxoom la mujjee ndax waxoon na leen ni leen fichier bi nga xam ne moom la ñu yor xel dalu ca na gaa yi saytuwaat fichier bi nga xam ne moo nekk ci réew mi jamono ji na gaa yaa ngi laam-laamee ndax fichier gi ñu yor ndax moom la conseil yor ndax waaye lu ñu teg moom conseil ba daal di teggi faya laahu wal fu ko dajee naan kon en tout cas fi mu ne jaaxle am na lii xëy neexul ci ñi nga xam ne ñi ngi leen di dippee ay kangam ci candidature ci réewum senegal l'enquête ko jee naan kon doublon yi rek bokkun ma la yile doublon boo moytul moo nar a téye yenn kàngam di candidat ci réew mi démb benn candidat rawatina yu mag yi amul kenn ci ñoom ko xam ne ma ni la jàll nga ci parrainage citoyen Mohamed Boun Abdallah Dionne Moutilil Malick Gakou Moutilil Mamadou Lamine Diallo Moutilil Souleymane Ndéné Ndiaye mutilil Aly Ngouille Ndiaye mutilil Serigne Gueye Diop mutilil libération yéeni kaay naan koon ñaar ñaar dong jàll ni ki démb te ñoom ñaar ñëpp ay député leen parrainé muy Habib si ak Karim Meïssa Wade l'observateur naan koon fi mu ne dafa mel ni politique dafa tegu ci ay loxo yi yees ñen fi duppee ay kàngam fi mu ne ñoo dem bay am jafe-jafey parrainage ci réew mi l'enquête naan koon dara dafa am candidature yoo xam ne daanaka xañ ñeneen ñi candidature la te seen bopp saful jën saful leneen turbine yéen a kaay naan dañoo matut mbuus kay di yàq candidature yoo xam ne amuñu caution ay candidat yoo xam ne ay daanaka téeméeri parrain la ñu am ay candidat yoo xam ne daanaka fan dëkk xamuñu leen ñu daal di soobu ci lang gi ne dañuy wuti ay parrainage matuñu mbuus yàqal nañ ñeneen seeni mbuus fi mu ne ñu déposé dara baaxu ca te keneen ku ca déposé lu baax ñu ne la ay doublon la tribune yéene kaay naan nguurug Sénégal moo ci war a wax wala askan wi ci boppam jukkaas ko fajal ko boppam ndax candidature yi nga xam ne ñi ngi yàqalaate am nay daan yoo xam ne warees na ko seen ndodd ngir ñeneen koo jéem ñu xaw a ragal di puus ndax fi mu ne ñi askan wi bien bon le quotidien le man en tout cas Habib moom mooy plan B bu Sonko ay député Ousmane Sonko ci boppam ñoo ko daal di parrainel moom Habib Sy naan bu Ousmane Sonko jàllee ma retiré sama candidature bés bi le jour naan kon en tout plan C bi moom complexe na lool docteur Babacar Diop bu Thiès yéen kaay bi naan man teg nañ ko loxo ci parrainage bi 24 heures yéen kaay naan man booba ma ngay ñaabar Ousmane Sonko niki tey moo jar a ndax tey jii moom Ousmane Sonko la koy xaar ci ëttu attekaay bu kawe bi mën na koo teree doon candidat yéen kaay bi naan man coowal diffamation diggam ak Mame Mbaye Niang ca àtte bu njëkk ba moom lañ ko daanoon dënk na ko moom Ousmane Sonko tey ji ëttu attekaay bi ñuy xaar da koy am day setal Ousmane Sonko Sud Quotidien daal di may xamal ne en tout cas Ousmane Sonko ma nga tënku tey ca la nga xam ne ëttu attekaay bi war na koo dogal ci diggam ak Mame Mbaye Niang tuwaw moom président Macky Sall ma ngay tàccu Amadou Ba naan kon ñaabar ñaabaril yow Amadou Ba moytul yow Amadou Ba defal ma rapport ci sama bilan ci fukki at ak ñaar yoo xam ne taxaw naa ko ci bopp réewum Sénégal le témoin yéene kaay naan maan en tout cas Abdoulaye Diagne mi nga xam moom la Sall dénkoon parrainage ci Benno Bokk Yaakaar daal dinay ubbi dënnam waxi dëggam ci biir yéene kaay bi Abdoulaye Diagne député xam le ni moom président Macky Sall loo ci manti dee guide meilleur ci Afrique ndax ku xool ay réalisation Sall mënoo teggi baat bi ma ngay dem waaye dina bàyyi suñu bopp ak suñu xel ab président boo xam ne liggéeykat la woon du woon noppalu sédd na ko askanam président boo xam ne tabax la dëkkee woon président boo xam ne bëgg na Afrique moom boppam jox ko gëdëm président boo xam ne defal nañu choix bi gën di Amadou Ba ñu fas ci yéen a topp Abdoulaye Diagne naan coowal ñetti millions ak ñeenti millions parrainage yu mi ngi lëmbe dëkk bi naan leen 2019 rek yàggul ñetti millions ak xaaj ci parrainage la ñu am waaye ba ñu ko saytoo segg ko seggaat ko ñaari millions ak xaaj la daal di mujjee daanaka ci liggéey boobee la ñu toll woon ak Amadou Ba mujjee nag déposé bu élu yi ni nag mën nañoo jaar fépp te mën nañoo it fatt fépp booba turbine yéen kaay ma nga mel ni ko koy artu naan kon en tout cas président Macky Sall lu mu def te fayul coowam la nga xam ni am na ca diwaanu maatam lu ne mën na koo dund ci élection présidentielle yi gars yi nga xam ne ñoo nekk ca département ba naan président Macky Sall waxal ak Farba Ngom waaye tam fexeel ba discipline daal di am te diiwaanu Matam googee ndax fii lañ fi agressé maire bu bokki jawbe Kalidou Wagué boobaak léegi France daal di xidéem maire yi nekk ci Sénégal gi yëpp di ko naqarlu boobaak léegi France daal di xidéem gaayu Matam yi naan ci lii dina metti ci moom ak ci amadu Ba ci élection présidentielle yi ndax xiiroo ak ŋaayoo gu mitti tàmbalee na am ci diwaanu Matam l'observateur naan maan fa cour suprême daal di fatt moom moo di nag coowal marché bi ñu ne gré à la diggante ministère de la santé ak Afrique conception distribution yéen kaay futur média bi di ma xamal ne ca marché juróom-ñaar fukk ak benn milliard bi nga xam ne andi woon na laam-laame ci réew mi moom ëttu attekaay bu kawe bi daal dinay tàbbal géej recours bi nga xam ne Carrefour médical ak yeneen distributeur defoon nañu ko sàkku tas tasar marché boobe ëttu attekaay bi daal dina koy tàbbal géej moom ëttu attekaay bi xamal leen ni amul génn jiixi jaaxa boo xam ne gis na ko ci joxe marché boobee daal di leeral ni lii entente directe la waaye marché gré à gré mënee su ko ko duppee ba tax nag mu daal di setal ministère de la santé tribune sport naan man diggante Modou Lo ak Boy Niang CNG dagg na Boy Niang ñaari million ak daanaka téeméeri junni daal dagg Modou benn million ak daanaka xaaj l'observateur naan man tës baa ngi soxna si dañu koo dénk xale bu am ñetti at xale bi